94 Walf Sénégal dellu si di leen siyaar di siyaare mboolem kuy toppal 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yi nga xam ne leen ko defal saa su ci réew mi ak bitim réew tey nag ñu dem ca diaspora dem ci réew mi ñu wax États-Unis xàmmee nañ ki kii image am yaakaar ne kenn dootu ko fa présenté ci réseaux sociaux yi muy kan Tunkara mi ngi taxaw di wax ak journaliste américains yi parce que américains yi moom surtout occidentaux yi bu ñu gisee ni maanaam africains yi ñu ngi def ay manifestation dañoo nekk ñoo xam ne nii dañoo dañ kumpa faaw ñu laaj te gis nga ko li may wax ak nii moo tax daanaka daanaka am na yoo xam ne bala ñu ciy dugg nañuy xool bu baax a baax parce que tamit. Euh, Sénégalais yaa ngi un peu partout euh, dans le monde fépp lañ nekk te am na ñoo xam ne ni dañoo yaakaar kii ñu téye am na ñoo xam ne ni dañoo gëm kii ñu am na ñoo xam ne dañoo gëm euh, ay discours am gëm xam engagement am yooyu yëpp voilà te daanaka mën naa ne fu nekk am na fa voilà moo tax yu mel ni bala ñu koy def nañu xool li nga xam ne ni mu ngi ci ginnaaw parce que ñii ñëpp tey ji nekk ci barami fasanti ko tey yéen a ko gisandoo ndax yaakaar naa ne réew yi yëpp yaa ngi gis ñëpp a ngi jóg kenn ko ne yaa ngi voilà